Euh, salaamaaleykum wa rahmatullah zoom si mbir yàllaan ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di jaajëfal ñëpp euh, di ñaanal kilifa diine kilifa aday bu baax yal nañ fi yàgg lool te wér yal na yàlla def jàmm ci senegal yal na def jàmm ci Sénégal mu saawaan baawaan wër adduna bi yëpp incha allah parce que jàmm moom franchement soxla nañ ko moment yii euh, du nuyu amateur yeeg euh, amateurs et amateur de la diaspora waa CNG les lutteurs les anciens lutteurs du nuyu le monde de la lutte en entier hein. une euh, émission docteur avec Ndiak Albert au micro ah tey 30e numéro suma c'est une émission docteur là dimanche mu nekkoon et kan moo woote woon Chang Chang production bu ngeen déggee Chang Chang production nag kooku mooy Mame Diarra Cang Mame Diarra Chang ndeysaan Ndeye kooku lay woowee Ndeye Ndiaye Tyson numéro 2 Ndeye Ndiaye Tyson lutte simple bi moy mam Diarra Thiang jigéen ju mën góor et franchement il a osé hein il a osé du moins parce que démb euh, fête Pentecôte la woon di ci profiter sax di ndokkeel euh, suñu mbokku catholique bu baax di leen ñaanal ñen yal nañ ko yalla fête yal nañ ko fête ay atti atti atti atti atti waaw dem na kon Pentecôte euh, Diarra Thiang osé tek ci benn somme bu 3 millions ngeen xamné 3 millions jamono bi ñu toll ni franchement euh dara la de. dara la de boo ko boo gënoon Dakar fa Ndiaye tuuti rek mën na ci am benn terrain bu baax nga xool jour Pentecôte nga teg ci mise 3 millions def ko ñetti catégorie yala def nag amateur oui c'est en masse parce que man sax dama doon jéem a ragal ne est-ce que dina bëri nit ndax ndax fête bi mais heureusement eh, franchement gars yi wuse nañu wuse nañu ak masse eh, mise bi nag eh, mu ngi nekkoon en trois catégories ah trois catégories la woon raw gadu poids léger ak poids lourd waaw ragadu bi nag ñi ko jël moom fàtte nañu tuur yi mais euh, poids léger ragadu bi poids bi seeni bu barñi moo ko jël euh, seeni bu barñi moo ko jël ci benn boy xam Ousmane Ngor Ndiaye lañ ko xam mais euh, poids bi poids lourd bi waa seeni bu barñi aussi dama fi bëgg a taxaw tuuti rek parce que yaakaar na mook ñoom ordinateur ak ñoom yamb bu Dakar ñoom Anta Samb ñoom Naami ñoo demoon Tunisie représenté du fofu euh, Sénégal ci tournoi beach wrestling muy beure plage yalla def ñu récolter 10 médailles 10 médailles yoy y a ci ben émission ñu yakote 10 médailles ñom ñu am chance boko ci trois yi nga xamantene trois lutteurs sénégalais ñu amone médaille d'or muy mm, ki euh, Seynou Barni modou fay ordinateur ak Yamou Dakar

Euh, bugg a taxaw rek euh, c'est le champion du Sénégal en sa catégorie de 86 kilos nekkaat aussi champion d'Afrique en lutte en en lutte wrestling euh, en lutte beach wrestling muy bëre plage donc franchement xele bo xamantene la xele bu xam fiñu ñu fimu fi tankam la xele bu jar féliciter la xele bu jar encourager la aussi wa xele bu jar buñu ñu jar encadré la xele boobu dañ ko war encadrer parce que xam né buñ ko encadrer euh encadré dana am lañ bëgg ci mom franchement euh, yalna na aussi euh, prochainement mu dem ci dawo euh, tej fa comme ni fa Yékini defoon ak ñom rek Reug ak ñom Eumeu Sène parce que ñom ñëpp jaar nañ fi mais en tout cas dal c'est le champion du Sénégal en en 86 kg nek le champion d'Afrique de beach wrestling à sa catégorie donc franchement la félicité lambu dem bi neexoon na comme ni comme ni ma leen ko waxee jaara cang ma won woon tegaleen bari 3 millions en 3 catégories au finish poids lourd bi ngañ sen moko ko mujjee ci ki wax Lamine Lamine mu ngi dëkk côté eh, ci boori Sokone bi côté ñombaatu bi touru dëkk bi tax xawna ko faté mais fofu la Lamine dëkk donc ñuy encourager Lamine di félicité ngañ seen bu baax waaw ngañ seen ñu ko féliciter de encourager Lamine de c'est la loi du sport sport nonu la eh, toujours boy dem da ngay wuti mën nga ñak mën nga gagner donc ñu ngi féliciter le vainqueur di encourager le vaincu ki nga xamante mo perdre ñu koy encourager di féliciter ki nga xamante mo gagner gagné lamb ji nag franchement animation bi Maodo Faye mo ci nekkoon eh, ci teug mi qui euh, il était la marraine en même temps la chanteuse en même temps on a aussi ci donc franchement une innovation bravo à Mam bravo aussi à Adjan Defatu. parce que mon a en même temps nous mettons des mais franchement y a ne que sax ko ngir Il enveloppe enveloppe xamuñu la mais enveloppe enveloppe enveloppe bu am franchement enveloppe bu am mais euh, yaakaar naa ne jaara ci ang tuddee ko woon ngir euh, ngir mu indi xaalis parce que genre euh, ñooñu dañ leen war a génne ce sont des talents ñu mel ni Ndefaatu Adama Jali ñu mel ni ñoom Mbayang Loum hmm, ñoom Faye Mbodj ñoom Agnès bu Mayendeb ñooñu ñëpp dañ leen di war a honoré ñoom Adama Ngom hmm, ñooñu dañ leen di war di honoré ñoom Hélène Bouga Ndiaye ñooñu ñëpp dañ leen di war di honoré parce que au moins nag am na loo xamante ne def nañ ko ci lamb te am naa yaakaar ñooñu yëpp ci Khady Diouf la ñu suxee ko ba mu des Mayendeb

mais franchement teggi mais koy mi yëpp jaaroon na yoon waaw franchement lamb ji moom gisuñu fa lo xamantene ne euh, mën nañ ko mën nañ ko critiquer man mom franchement émission jox top lolo ko tax a jóg su ma gisee loo xamante ne euh, jàpp naa lu anormal la man dama koy wax suma ma gisee lu normal aussi dama koy wax mais lamb ji mom euh, franchement ala daw mel na combat yi nak amna ci combat bo xam amon na litige mu jigante ndjol Sana ak ben ak Ablaye ndjol Sana defon demoon sax ak ben boy la sax boy yakana boy mo finalou

Euh, di félicité bu baax nag jaara càng di ñaanal yàlla comme ni mu rek yàlla dem ba tëgg ay combat ci arène bi parce que moom nee na euh, fekk nañ moom ak benn waxtaan nee na euh, lamb lamb dóor yàlla na sotal parce que jàmm pexam yàlla dogal mais yàlla na sotal yàlla na defal ay fonds yoo xamante ne balaa déwén dina mën a tëgg ay grand combat ay grand combat sax pourquoi pas ñoom Modou Lo ak ñoom mbir moom mbiru xaalis rek te yàlla Euh, tour xewal bo xamantene euh, franchement bu balaa déwén dana meuna teug ay grand combat wala mën a dem ci lamb ji woné woné bopam comme par exemple ni ko ñoom Ndeye Ndiaye Tyson di ko def parce que man mom la tudé Ndeye Ndiaye Tyson par exemple té mom bo xolé mook Ndeye Ndiaye Tyson sax dañu xaw niro niroo xaw a bokk li ñu bëgg xaw a bokk bëgg-bëgg donc franchement chapeau à euh, chapeau à mam Diarra Thiang mm, chapeau à mam Diarra Thiang chapeau à son staff aussi parce que kenn nit kese ben làmb mënul mënul yëngu dafa am ñum saxal staff yi di féliciter ñom ñëpp le staff yi ñoom Biram fay ñom Ousmane fay ñom ñëpp ñi nga xamante ne xaw moo seen tour di félicité staff yépp daal en général ni mu toll noonu te franchement yaakaar naa dugub bi dem aussi ci TV TV yaakaar naa amuloon problème waaw ñi ñi nga xamante ne dafa defuloon public sax bi ñëwee dugg nañ chapeau loolu lañ bëgg ci promoteur parce que promoteur aussi mënu dem sans TV parce que boo xoolee lamb bu amoon eh, promoteur doon dem ci télévision fay dem ci rajo fay ah fay ay spot publicitaire mais yooyu yëpp léegi TV ñoo leen ko yombal donc franchement kon aussi eh, TV TV bu ñëwee warul am sax jafe-jafe ci bunt ba parce que boo yegee boo yëgul mu ngi def promotion lamb parce que ñi nga xamante ñu ngi def émission lamb yëpp dañuy def annonce lamb te annonce lamb boobu rek mën naa egg fu ne donc loolu plus gën a ko waaw ñu ñëwal leen ci annonce lamb ji muy Daaru Mangi la ben sax ci bi MGC euh, samedi le 3 juin à Fatik, 12 bœuf à 60 000 francs la Faya ak Agnès ñoo fay euh, sargal sar la sargal euh, hmm, Lamine TV Lamine TV nag suñu confrère la Lamine TV depuis bi mu eh, dafa de faire ci parce que aussi nit Mokam waaw ne li pas di wax nit mokam le 3 juin à Kobongoy mu tegal mbëri un million de France CFA drapeau sargal Ibou Ndapa c'est un grand champion eh, c'est le seul lutteur qui a doublé le drapeau chef d'état en deux années successives même en 85 et en 86 tout ici à Dakar parce que yaakaar naa ne drapeau chef de la 84 lañ ko ñëk organisé mais 85 Ibou ndap ko jël 86 Ibou ndap Ibou ko jël donc kon Lamine TV bu ko sargal rek franchement def na def nga lila war sargal nga aussi ku jar a sargal té lolu yaakaar ne waru doon njëkk sax ci yow waaw avant nga ko sargal japp na ne man wa CNG war na njëkk sargal Ibou ndap ba paré wa CNG même wa village buñ ko sargalul wa CNG war na ko njëkk sargal parce que nak franchement ku jël drapeau chef de l'État ñaari année yoo xam ne dafa tegle ak jamono boobu ni lamb ji demee woon nga xamante ne bu demee ci lamb bu nu wax ne nga xamante ne ci la xaalis gën a bëri ci lamb ji eh, ci ngay boo demee boo toogee rek tirage bu ñu dawee benn wala sax mbëri bu ñu dugg sax mën nga xam ne am te bu njëkk donc chapeau ay bu ndappa sargal nga sargal waaw Lamine TV le 3 juin à Kobongo avec Euh, terrain gaal avec une mise de 3 millions à 3 ah, millions au terrain gaal Nabou production Nabou Ndiak tu Thiomi Ndiak Nabou euh, Nabou euh, jigéenu jigéenu gars le 4 juin au terrain gaal de Khariala avec une mise de 3 millions donc c'est une date à ne pas rater c'est que c'est un agenda c'est une date à ne pas rater nous avons venir au ci fans club fans club Gagné Fama club Fama du 12. au quinze juin du 12 au 15 juin la à Bettenty ci dëkkam waaw race ba na benn nag la ak 150 000 francs poussière ba nekk benn nag ak 300 000 poids léger ba nekk 500 mil moom moom ak maag ñoom ñoo fay nekk kon jàpp naa ne est-ce que dana am poids lourd wóoruma ñoo joor du 2 au 6 juin ñoo joor du 2 au 6 juin faut aussi nee na uppajeel ba ñaari nak la ragadu ba ñetti nekk ñetti nak tànk ya 400000 la poids lourd ba nekk 500000 ñaari nak ci uppajeel nag <laughs> loolu moom yaakaar naa ne man mi sax bo demee est-ce que dama dem samp ji na dina nekh franchement Karang du 31 au 1er juin du 31 au 1er juin euh, lourd ba 1 million la léger ba nekk 500000 donc ya kon ñaati catégorie la ñaari catégorie Mor nga mo fay nekk ak Mbayang euh job production du 31 au 1er juin la poste Karang aussi avec une mise de mise de 1 million c' est même annonce ah même annonce Le morgom Mor Ngom ak euh, Mor Ngom lay doon ak Mbayang Loum ah Ndubaab à Joal Ndubaab nag euh, ndeysaan Joal la ben quartier bu ñuy wax Ndubaab la 8 juin ba le 10 juin mom lay organisé tegtal mbër yi 3 euh, millions 3 millions bu aussi dañ cee toftal ñett ñaari fas ñaari fas waaw ñu ñuy toftal ci ñetti millions ya waaw Souley Babou 25 juin à Grand Yoff date bobu kenn waru ko manquer parce que Souley Babou moom franchement Mamadou Ndiaye moy l'homme aux trois générations mais dafa xaw a bokk nag palmarès mook Souley Babou soit Souley Babou aussi boo xoolee mën nga wax c'est aussi l'homme aux trois générations donc mook Mamadou Ndiaye dañoo xaw a niro palmarès donc euh, le 25 juin c'est une date à ne pas rater à Grand Yoff avec une mise de 1 million Amalda Amalda association là, buy dox ci euh, waaw euh, association dox ci le 2 juillet à Grand Yoff avec une mise de 1 million Il y a Sent Dom Ambrassar, Ambra y a Sainte borom Bessi a Sainte borom Terengal gi ak Ibamar woote le 9 juillet et fan la wote Grand avec une mise de 1 million de francs CFA Maintenant, Niane le 23 juin d'espoir Grand Yoff tegal 1 million de francs CFA association Arène Adrien Senghor euh, ñew nak pour tej Adrien Senghor euh, ñew pour Adrien Senghor le 30 juillet avec une mise de 1 million sauf dérogation parce que dérogation mon âme. am Lulu Lulu Benteñe aussi un jeune actif de Ndioudiouf ñoo 500 000 francs Moundé du 1er au 4 juillet avec euh, en trois catégories et trois catégories lay doon euh, trois catégories la euh, catégorie bu ndaw ndaw bi nee écran plat lañ leen ak francs deuxième catégorie est leen nag ak 15000 troisième catégorie bi ñu 25 leen nag ak euh, ak 25000 donc aussi Massey mo fay nekk ci teuguma ak Adjande Fatou bu Adama li borom bi borom waaw CLG moy comité local de gestion de la lutte de Niahar mo tegal mbir un million francs à Niakhar hein, le 10 juin le 10 juin avec Ndeye Fatou ak Euh, seen émission Njoktoor la di leen wax nag leen téléspectateur franchement surtout dem gis nañ abonné yi nañ abonné yi ngeen yokk abonné yi pour ñi nga xamante ñu ngi safoo euh, Mbine TV franchement ku ci nekk na nga abonné leen di partager vidéo yi di partager live yi di partager aussi di aimer di partager di liker parce que loolu euh, bokk na ci li nga xamante ne mooy neexal lamb ji waaw seen émission Njoktoor la woon ak ñàkk Albert au micro ci kanam tuuti nag bu vidéo bi jeexee dañ leen ci tëftal euh, benn extrait moom Mame Diarra wala sinon kenn ci parrain bi wala euh, kenn ci invité d'honneur yi euh, ba beneen numéro avec Mini Yelane TV